may wax ni spécialisation des rôles ku nekk Aïcha liggéeyam moom daf koy def laajuñu ko leneen ci loolu fànn boobu rek ñu ko tënk moom lay def bu liggéey bu pare jébbal liggéey bi keneen ku nekk am liggéey ubbil nga ma ubbil nga ma une grande porte boo xamante ne dinaa ci laal peut-être Djibril Bey mi nga xam ne nii sànq may wax transparence il n'a pas été d'accord avec moi mhm. tout simplement parce que jàpp ne transparence am na ci réew mi mais pour na ma ko mooy ne que tey on peut pas parler de de dans un pays bu nga xamante ni on on on on signe des contrats d'armement yoo xamante ni ña ko signe ñu ngi naan c'est pas des personnes adéquates pour ñu signer ko ki nga ñi nga xam ne signer nañu ko c'est des personnes yoo xam ne dañuy di citer dans des chose yoo xamante ni c'est carrément illicite ña ko signé aussi ñu ngi leen di wax ne est-ce que c'est des personnes yoo xamante ni ñoom ñoo waroon toog signé ko je m'explique contrat d'armement bi nga xamante nii euh, affilié nañu ko ak euh, ak pour les euh, les agents eaux forêts ñu estimé ko a à cinq milliards de francs CFA ay armement yoo xam ne nii duggal commandé nañu ko commandé ko ci koo xamante ni bu ñu ko dee xayma ca dëkkam nga mu nekk il a été épinglé par beaucoup de dossiers ba ñu koy wër Sénégal toog di signé moom contrat ba pare loolu ñun ñi yëguñu ko xamuñ ci dara ba pare ministre de l'environnement signé ko ak ex ministre des finance ñu ne tawaay ñu teg ci presque at Sénégal di koy doog a yëg ndax lan y a une organisation presse internationale boo xam ne bind na ko ba ñun ñu jot ci daal di koy dégg à la une pour mu mën a pour loolu est-ce que ba scandale boo xam ne nii teguwaat na ci yenn scandale yoo xam ne nii chaque jour ñu xëy di tudd Sénégal scandale depuis depuis gën a garaaw Sénégal hmm. mooy Sénégalais yi di déglu presse étrangère mën na doon ñoo xam ne dañu bëgg a déstabiliser Sénégal. Ah, ci na ngeen non attendez. il faut ñu def très attention. man damay jaaxle même temps wu Ablaye Wade les gens sont passés par la presse pour déstabiliser Ablaye Wade pour déstabiliser le Sénégal à un moment donné. Euh, les présidents qui défendent leur pays à un moment donné face au lobby international mais les lobbies ils sont très puissants. Hmm. dañuy fay benn presse léegi mu def un dossier. comme ni ñu ko daan defee sax ci Karim Wade xëy na la Karim Wade woote na démb ne Bourgi euh, indi leen armée française ça peut être des mensonges te presse daf ko doon jël di ko relater homme politique yi di ko jël di ko manipuler le Sénégal au-dessus de toute considération dama lay wax ne ñun dañu nekk ci état benn mooy tey jii yaa un système d'information euh, boo xam ne boo tappee léegi boo demee ministère de la santé nga tappee léegi ligne budgétaire u santé yëpp xam nañu niveau d'exécution bi xam nañu fu mu toll xam nañ la ca des ñoom bu ñu bu ñu voté loi loi autorisation de crédit la l'exécutif n'a plus le droit n'a plus le droit non seulement dépasser crédit yooyu ñu koy yemale man mii di gere institution pas institution établissement mhm. tey jii dama am un agent comptable boo xam moo yor xaalis bi man du ma gis xaalis mhm. mais kooku lu ma ko jox ci dossier pour mu fay yoon da ko ne balaa nga koo fay lii mooy tax nga fay foog mu am bon de commande foog mu am liasse foog mu am crédit ci budget bi hmm. foog ligne bi exister ci budget bu amul foog mu dem marché public bu amul bul ko fay boo ko fay da ngay dem kaso hmm. waaw nga am système information sur les marché publics on a un état qui dans la transparence totale maintenant nous sommes des fonctionnaires transparence totale ci ay marché yaa ma neex nous sommes des fonctionnaires transparence totale ci ay gonflement de chiffre. Ah, ma ñëw nous sommes des de transparence totale boo xam ne chaque jour ñu ah, épinglé chaque jour non da may may nag chaque jour ñu épinglé ay ay ay ay ay ay ay euh, chaque jour ñu épinglé ay ay institution yoo xamante ne nii euh, ay off nag da leen di tudd. waaw loolu moo tax ñu créé voilà ay euh, non non nous sommes nous sommes des fonctionnaires nous sommes des agents de l'État. xam nga ñun on se base sur les faits. on est des journalistes on se base sur des faits. waaw mais nous sommes des agents de l' état. waaw peut-être yow mën nga demee ak ay parti. non man dem jël marché bu 100 millions man si sama dënguwaay ma jël marché bu 100 millions. Mhm. jaaralu ma ko yoon. moo tax ñu teg fi nag moo tax ñu teg fi ay euh, ay cour des comptes pour ñu ñuy saytu. pour bu ñu juumee ñu sanctionné. te bu épinglé ñu tuddee Macky Sall teg ci kuddam maintenant non non loolu tamit dañ ciy taxaw te bu épinglé ba pare. waaw le président Macky la teg ci kuddam. parce que waaw xam nga wax da koy jël ci contexte am. ban contexte soxna si gis nga président Macky Sall bu wax lool da ko doon wax vis-à-vis de Ablaye Wade. non il n'a jamais expliqué lu tax mu wax ko madame madame Sindiély Wade a géré le FESNAC. loolu mu xam ne tey jii mu ngi nekk ak Karim ci xam nga nag bu leen jël Macky Sall bugg ko def yàlla Macky Sall nit la. mais c'est le président non xaaral ma ne président nit la. président day téye dossier ay kilifa xalif généraux yi yow sa kër da fay am coow nit dugg si ñaan la nga bàyyi loolu moo tax ñu may koy ay instrument de grâce parce que dafay téye dossier ku mel ni seen feu Sidi lamin jóg dugg pale ne ko ma ne lii teg ko ci suuf intérêt Sénégal moo tax mais da koy teg ci suuf nit la donc nekkul moom condom ñu teg loi fii da nga yor sa personnel sax ñuy dugg 9 heures nga toog sa bureau di leen gis ñuy dugg si 10 heures 11 heures du toujours da ngay ñëw yor sa bâton di sanctionner dama la bëgg a ne nous sommes dans un état maintenant pour les marché dont tu parles man je suis vraiment à l'aise de le dire. Mm. il faut qu'on arrête la manipulation. marché arme mooy lan yow marché public code des marché lan la la wax le principe c'est l'appel d'offres dès que le xaaral rek dama koy loolu. pour sur le cadre petit bout de. waaw ma ñëw na si appel d'offre dafa am waaw tu ma laisse ma yeggali. dama ne le principe en matière de commande publique c'est l'appel d'offre on te dit dans certains cas doo def appel d'offre mooy lan lépp luy secret défense hmm. lépp luy mobilisation nationale xam lan mooy mobilisation nationale. mobilisation civile national mooy dara lu rëy lu xew ci askan wi war a dal ci askan wi doo fa daw di wuti ay marché public parce que législateur bi lu tax mu koy def mooy danaan xaalisu askan bi laa bëgg moo am transparence waaye bu askan bi nekkee ci inondation da koy ne yow sa xaalis maa ko yore du ma la faj du ma lijjanti sa inondation damay def marché public mu diire 60 jours balaa ngay ñëw mbaa waa du dee ñu ne kaayu mel noonu inondation urgence impérieuse secret défense Sénégal tey boo dee jënd armement ne jënd naa cadeau boo xam ne mën na dem ba Mauritanie Nouakchott def appel d'offre le Sénégal contre acheter des armes euh, de de tant de euh, kilomètres waaw waa Mauritanie du ñu xam ne kii Nouakchott lay waaj a bombarde mm-hmm. et pour temps d'autres raisons urgence impérieuse marché complémentaire ñu ne la am na procédure dérogatoire dérogatoire mooy lan mooy procédure boo xam dañ la koy autoriser kan moo la koy autoriser y la direction centrale des marchés publics moo lay autoriser avec des arguments <coughs> monsieur le directeur de de la centrale des marchés publics le ministère de l'environnement compte acheter des armes pour le le ces ces ces agents qui sont des militaires des paramilitaires Euh, agent agent forestier agent forestier tamit. lu ñu dee tamit ay contrat d'armement bu 45 milliards agent forestier yi agent forestier yoo xam ne ay braconnier ngay dem di dàq jeeg ak ay kii 45 mais mais Aïcha Aïcha Aïcha non xaaral xaaral may ma yegg non xaaral xaaral non dafa am loo xam ne dama ko bëgg a delloo rek. da ngay seet da li waru seet kii non je suis pas d'accord je suis pas d'accord ci li muy wax je suis pas d'accord le fait que nga ne le fait que nga ne bu seddal bi tey je suis pas d'accord non non du seddal loolu du seddal dafa am lu may rectifier rek le fait que nga ne ay agent eaux et forêt lu ñuy doyee loolu non newuñ ca xamuñu lan la ñoom ay agent lañ la ñuy jànkonteel xamuñu ko donc mënuñu wax. waaw léegi d' accord mais même d' accord naa ci li nga doon wax mais nee nañu. mais argument fekkonte ko ba ko. mbir ma mbir ma warut a yegg sax 22 milliards. non loolu yow beneen mbir ngay wax. loolu boo ci amee ay preuves. écoute man je suis la manipulation moi je parle de choses concrètes de faits dama ne. ils ont demandé l'autorisation à la direction centrale des marchés publics mu autoriser leen le contrat mooy un contrat d'entente directe entente directe communément appelé gré à gré mais c'est prévu par nos textes madame. et c'est la transparence totale. d'accord et c'est ce qu'ils ont fait une question. non je te pose une question peut-être. Euh, Aliou Sow Aliou Sow Aliou Sow laisse-moi rek ma que je suis en train de une petite relance quand même une petite relance. Djibril une petite relance il faut une petite relance. même su fekkente ne d'accord naa ak yow ci question de code de marché marché public parce que peut xam nga ko ko parce que tu es directeur euh, directeur de de de. jàngale madame xam nga ko di ko jàngale. foofu nga en économie xam nga xam bu a baax. a débat ak yow que comme ne jàpp nga ne état bu Sénégal état la boo xam ne dafa dafa souverain est-ce que war na mën toog di négocier. ak un présumé bandit. qu'est-ce qu'un mm-hmm. présumé bandit. un mooy koo xam ne m ah. da ko épinglé petit boubé ba ñu koy cité di ko cité partout di ko topp. le président américain comment il s'appelle nga toog nga signé ko contrat nu mu tudd. le président mu tudd. Joe Biden. Joe Biden Donald Trump du bandit. ah. c'est pas un homme d'affaires. ban xeetu bandit. ma ne attends le prince saoudien jiinuñu ko. moom ne moo assassiné benn kii fële en Turquie. journaliste bi. ah président Macky Sall du ko seeti barki démb jooy baadam demul seeti ko soxna si def leen ndànk lan mooy bandi c'est un homme d'affaires qui vend des armes Sénégal def na contrat en temps direct je maîtrise pas tout ce qui est derrière. mais dama ne éviter leen une chose ñu leen di manipuler jënd nañu ay armes en temps direct c'est prévu par la loi. Euh, c'est en cas de secret défense. Djibril yow lii kon jàppoon ne lii scandale lii dara newu ci. Djibril lii du scandale c'est de la politique politicienne. non man j'ai peur comme pour ñu bëgg a diriger suñu réew bu bii wàccee. lii nga ne du scandale. français yi ñoo ñu yàq malheureusement ce pays là. mais mais xam nga loolu laa ñu d'accord xaw ma loolu laa suñu réew. chaque semaine nga ni scandale man man man man xam nga moom bëgg xam. ma ne la gestion elle est oh, transparente dans ce pays. Euh, non non xam nga c'est tout le temps man man très très franchement lan moo ci nekk scandale. très franchement très franchement man en tant que journaliste man en tant que journaliste. ngay jàppande yow pourquoi ñu wax la ne code bi dañ ko prévoir ARMP daf ciy wax direction centrale da ciy wax finance da ciy wax nos partenaires économiques Sénégal nekkul ci ndum euh, Aïcha Aïcha faites attention a marché bi marché bi waaw marché bi opposition bi la rek on rentre dans les lépp mun na nekk mais aussi euh, bu ñu lay jiiñ euh, xaw ma dë. dëmm dëmm bul soccoo yelu liir ban yelu liir non xam nga lu tax yelu liir bi mooy lii. non non non contrat bi. c'est euh, transparent. c'est un contrat transparent Jibril Jibril ma xaw ma ndax transparent non c'est transparent moi je le dis. baal ma expliquer c'est autorisé par la direction centrale des matchs. est-ce que vous avez ñun signé ko décembre deux mille vingt et un ñun tey lañ koy soog a yegg après il nous sort. wala fajiri ah, am léegi may léegi may leen Aliou may leen may leen Aliou mu ñëw Aliou loo bëgg a wax foofu. lu nekk ngeen wax ci Sénégal léegi secret de c'est-à-dire que état aussi mënul ci lu nekk gis nga nit boo ko ko ba wóolu ko da nga koy bàyyi mu liggéey léegi nag bu fekk ne am na des chose yoo xam ne se avéré man ànd naa ci nous sommes tous des Sénégalais ñu ñu dénoncé ko li nga wax euh, ni li nga wax ni dëgg la mais aussi xam nga Djibril on a bien remarqué ici dans nos républiques xam nga luy euh, euh, facilité de signature c'est-à-dire quand on est ministre de la République quand ne est directeur général du société nationale en général on sait très bien en général aqulaay taala ces gens-là comment ils s'enrichissent très bien loolu ñu wax ko ñu bañ ko wax ku nekk ak sa aqulaay taala xam ngeen ni par exemple ñu ngi doon wax kaw ministère de la santé léegi nag une petite parenthèse mhm. euh, euh, centre neurologique bi nekk hôpital Fann waroon na pare depuis le mois de mai seize mois lañ ko waroon def xaalis bi génn na te centre ba ay xott moo fa nekk non mooy centre neurologique bi nekk kii. Ah, j'ai fait un dossier de kan mooy yow lan nga ci ah, xam. non non ah, xam mooy lan. lan nga ci am comme élément. mais mais travaux yi daf na moom lim la wax na daf na la. nangam la waroon a pare. te ba tey lii moo fa moom loolu la la mais dama ne mën nga lancer marché. waaw non jox nañu ko. mën nga ko mën marché mën nga lancer marché. <laughs> waa ji ko gagné defee commencé gas dal nañu. waaw waaw dal nañu Albert Roy. waaw la radiologie de Albert Roy ba tey pare waroon na pare il y a six ans. waaw ki biñ ko lancé sénégalais bi ko gagné. appel d'offre la ko gagné. Mm-hmm. ñu defal ko avance. loolu loo am moo ko prévoir. lépp jaar yoon. mu gas gas gas gas bu mu neex ko. mu taxaw kenn gisatu ko ñu dem di ko jëli porte plainte teg ko ci yoonu justice déjà. justice bi déjà ça prend du temps. léegi fa léegi léegi ñu résilier ah, contrat boobu. non d'accord lancé waat mais ba tey rajo bi mu ngi en construction. d'accord donc c'est des choses Aline qui se passe. d'accord et qui et qui se passe et qui se repasse. donc demal nga dem seeti directeur bi baal ma yëgal wala ñi nekk ko non moi j'ai fait un dossier. mais est-ce que dañu war a seetaan muy passe muy repassé di passe repassé. non dinaa ci ba pare oui. lan nga ci léegi léegi bay bay Aline daane ñu ñëw ci honorable yëgaliwuma li may ah, wax. non mais honorable dama koy expliquer rek. parce que non xaw li may expliquer li may expliquer xaw la. mais bàyyi ko moom mu expliquer dama bëgg ñu xam ne aussi. te loolu moo fi xew Aliou Sow on aimerait aussi avoir l'avis du du du de l'honorable par rapport à yow nga ñëw après ak chronique honorable waaw euh, euh, nekk na mbir moo xam ne. <laughs> Mhm. effectivement fan yi même le débat s'est soulevé à l'Assemblée nationale. Mhm, mhm. d'ailleurs sax Abbas euh, Fall je pense. waaw na à du ma dugg nag comme man je suis quand même. yaa yaa yaa rek yaa certaines questions d'état du ma ci wax lu bari. du ma dugg au prof ndax aussi quand euh, li may. li may li may la. Mm-hmm. mais quand même am na lu ma ci mën a wax loo xam ne aussi sur le plan politique. ak yenn ak aussi ak techniquement ci yenn mm-hmm. euh, vraiment wax nañ ci parce que c'est affaire boo xam ne aussi euh, sénégalais ñu ngi ciy posé la question comme ni ko Aïssa waxee. Mm-hmm. nit ñi yëgu yëguñu ko woon. alors le le débat s'est soulevé à l'Assemblée nationale. Euh, euh, fi armement jëm surtout eaux et forêt eaux et forêt au Sénégal amuñu qualité yenn euh, armes yi ngi war a mën utiliser en un certain montant loolu beaucoup technicien techniciens wax nañ ko parce que aussi ñu wax nañ ci ci ci mbir moomu le montant le marché aussi marché bi aussi niñ ko niñ ko doxalee comme ni ko ay aussi ak ki nga xam ne aussi moo gagné. le le marché. donc ba am na ay députés yi nga xam ne euh, jël nañ la la responsabilité de demander vraiment qu'il y ait une enquête parlementaire. Mm-hmm. donc c' est déposé sur la table di di président de l' assemblée nationale. Mm-hmm. xam ne ñu ko xool. Mm-hmm. Euh, une commission sera créée quand même pour ñu saytu. mbir moom. yooyu nag dafa xaw a bëri ci réew mi. donc te dafa nekk yi nga xam ne aussi wax dëgg yàlla eh, lu ñu lu jar a moytu la parce que aussi nga Sénégal amul xaalis xam nga budget Sénégal ñaat la. Mhm. six mille quatre cent milliards. ñaata lañ fi ñaata ngeen fi ñaata ngeen fi bàyyi yéen. non waxaguma loolu. honorable ñaar nga fi bàyyi non non il faut sauver deux mille cinq cent. ma ne normal pour que le budget mais pas à ma kii béy ma je. dix pour cent par an. ma je vous waaw léegi bàyyi ko bàyyi ko bàyyi <laughs> ah, ma bëggoon ñu ñu déglu rek man fii ñun fii dañuy contribuer pour kam li dafa am na waxtaan aussi waaw si la mais mais nag pour ñëpp mais mais nit soo ko daggee mais mais béy da nga bëgg a akiba waxtaan bi xam nga nit soo ko daggee rek <laughs> du ko nangu dafay perte maa ngi maa ngi jégalu li ñu naan fil d'actualité uh-huh. des fois da nga koy perte ci dañ la ci dañ la daggee mm-hmm. Sénégal moo amul xaalis six mille quatre cent milliards mais am na dëkk yoo xam ne ay ay maires yu ko am compétition. ba demee évasion doon ak mën mm. ba jafe-jafe yi réew mi am. Mm-hmm. ci niñ koy saytoo ñun ay élèves lañu li nga xam ne ñu ngi koy dund ci ci réew mi ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu environnement ci wàllu inondation ak coono yi nga xam ne nit ñu ngi koy dundee ci wàllu ñàkk. ci mbay mi ci partout kon ñun amuñu yenn xaalis yi nga xam ne ñu ngi koy dépenser d'une manière boo xam ne daf ñuy porter préjudice parce que budget bi ni ma man ma nekk député yàggul mais ni ma gisee ñu saytoo bi budget bi ak réclamation yu si yi ñu ciy def ak liñ ci soxla ak réponse gouvernement bi par rapport ak ñoom seen i priorité ak par rapport ak dispositions yi am sur le plan financier ça montre que le Sénégal n'a pas beaucoup d'argent Mm-hmm. ñetti ñetti ñun ñetti ñetti poste la am fu fuy gën xaalis presque mm-hmm. li jóge ci trésor les comptes secrets du mm-hmm. ah. trésor la douane et les impôts yooyu lañ ci am les comptes les trésor la douane et les impôts mais honorable gisoo ni que donc loolu mais honorable gisoo ni que euh, Sénégal quand euh, dañu am tendance su banaliser un peu milliards. Hmm. tellement de milliards dañu koy citer ba dañu koy banaliser alors que un milliard ça c'est c'est trop quand même. mën na régler beaucoup de choses. waaw mais xam nga aussi tamit euh, adduna bi moo toll foo xam ne aussi euh, maintenant tout tout est cher donc soo amul yenn yenn yenn yenn montants yi am na loo xam ne mënoo ci yegg. Hmm. Euh, ministre de la femme bi ñu xool tey rek li mu soxla ci xaalis jigéen ñi ci Sénégal yi les problèmes yi nga xam ne social jigéen ñu ngi koy dund ak li ak li nga xam ne doxalin bi nga xam ne war na am ci ci réew mi ci wàllu taalibe yi ci wàllu daara yi par exemple je donne un exemple comme mm-hmm. boo demee ci ci e, e, e, éducation soo xoolee ñoom ci wàllu fay salaire c'est les champions mm-hmm. de la masse salariale de la masse salariale au, au niveau du budget de l'éducation te xoolee plus plus de deux cent et quelques milliards donc foofu laa bëgg a waxee ne au Sénégal nous euh, soo gisee ñu am ay difficultés. Mm-hmm. mooy ñun li ñuy dépenser moo bëri. te fonctionnement. Mm-hmm. te suñu waxante moo tax moo Mali malien bi jël fii ñëw jël si Cap Vert fii ci Port de Dakar bi. Mhm. yóbbu ko euh, au Mali ñu jaayee prix boo xam ne ñun ñu ko ñun ñun ñu ko defar moom ko fii ci réew mi ñoo gën a cher la ñu ñoom parce que dépense yi nekkuñ benn li ñuy fay bi tey fii ci euh, fii ci Sénégal en tant que journaliste. Mhm. mooy gën a cher li ñuy fay un journal par exemple je donne un mhm. exemple comme ça. donc yooyu mooy yi nga xam ne. loolu moo am ci ci ci réew mi euh, ba tax na jafe-jafe yi euh, jafe-jafe yu bëri moo tax donc euh, am na yenn yi xam ne su ñu déggee. Mhm. xel mënu ko nangu. mais honorable eaux et forêt mu ngi leen jël eaux et xam naa ko xam naa xam naa lan mooy eaux et forêt. je vis je vis mais armement de 45 milliards eaux et forêt moom. c'est trop non xam naa xam naa ma ne. c'est trop cest eaux et forêt xam nañ lan la ñuy doy. arme ils sont restés plusieurs années sans. non xam nañ ñoom lan la ñuy doy arme. Ah, ñoom defuñu yenn liggéeyu armement yu mag yi. mais du armement bu mag 45 milliards pour pour Sénégal yëpp. tout euh, notre arsenal bi euh, yor suñu gàncax bi yow xam nga yow béy def sax en même temps yow nga règle de gestion xam nga yow mais gis ngeen contrat bi nekk ci biir yow yow béy dama ne 45 milliards c'est une goutte non non non non non non non c'est pas non par rapport ak suñu koom-koomu réew lu ne ci contrat bi kii dafa am lu mu laal lu am njëriñ lu ne ci contrat non non c' est que c' est que da si gis ay moto yoo xam ne. dañ hmm. gars yi dañ koy commandé. et puis ce n' est même yoo xam ne mu si gis am naa ci doute xëy na il faut ñu ko. Hmm. Hmm. mais dama si am ay doute parce que ay ay ay am na ci biir ay ay fusil d' assaut. fusil d' assaut yoo xam ne vraiment man man man xaw ma gars yooyu ñan la ñu war a geeral. pour autant man xaw ma quoi il faut qu' explique non. moom xamul li war dafa leer xaw xaw ma. Mhm. on peut m'expliquer. Mhm. te ay moto yoo xam ne. Euh, création moto bi rek moto yi euh, defar euh, moto yooyu <laughs> kenn defaratu ko depuis 2008 ay moto yoo xam ne dañ ci commandé ay ay ay ay ay c'est même pas la peine te xool kenn xamul loolu moto yooyu.